bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara eh, nu ngi ñëw ci sunu émission yoomul jumaa bu ngeen ko gisee fan yii noo ngi États-Unis nekk fii ci New York eh, tabarakallahu ñëw ci zawiya Seydi Hadji Malick bi bi nu jógee fële ca eh, kër seen Tuubaa tey ñu ñëw fii ci zawiya bi fi leen jullee jumaa fas yéene dugg ci jumaa ji waaye ànd ak sama xarit nag alaaj jibilaay bu nu ñëwee dañuy daal di taataan li nga xam ne mooy nodd yi ak bayaan yi ak xutba yi bu ñu nuppee jullee ndoog ñoom suñu jullee ba noppi nag toog def suñuy waxtaan àndandoo kook imaam bi ñu fi fekk xam naa imaam Abdoulaye Diop moom lañu fi fekk ak mbooleem njaboot gi nga xam ne ay njabootu lislaam lañ ñu fas yéenee taataan loolu nga xam ne moo fiy bàyyi ñaanal ci yàlla nag yàlla sotti ci réew mi jàmm sotti ci jàkka yi jàmm sotti ci jumaa yi jàmm loolu la ñuy sàkku euh, fas yéenee dugg ci jumaa ji nag xaar nit ñi agsi jibilaay ñu daal di dugg nag àndandoo ñoom ci li nga xam ni mooy euh, yowmal jumaa الله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

الحمد لله المتفرد بالقدم المتوحد بالصفات والأسماء المستحق للسكر والثناء كتب الموت على جميع الأحياء وجعل مصير كل ما على الأرض إلى السوال والفناء وأشهد أنه لا إله إلا هو ذو العظمة والكبرياء واشهد ان سيدنا محمد امام المرسلين وخاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم عباد الله ان تجهيز ال... ان تجهيز على الموت وصلاه عليه مما اعتنى به وحض عليه ديننا الاسلامي الحنيف fa innahu axiru xaqin lilmayit bilmayit almuslim ala ixwanihi alaxya wa yusracu liman shahida ixdaaru almarad an yulaqinhu laa ilaha illa allah lixawlihi alayhi salaatu wassalaam laqinuu mawtaakum laa ilaha illa allah wa lixawlihi aydan man kaana axiru kalaamih laa ilaha illa allah daxala aljanna wa yusrau taxmiidu aynihi bilmaai birifq wa bastu mafaasilihi wa atraafihi bacda almawti alakiid wa jaasa bukaau alxalb wa damcu alayni wa niyaaxatu xaraamun li xawlihi sallallahu alayhi wa sallam ann almayita la yucadibu bi bukaai alxayi rawaahu shaykhaani wa yundabu alishraacu bitajxiizihi wa tacjiilu dafn bacda taxaquqi almawt li qawlihi tacaala humma amaatahu fa aqbarahu ixwata alimaan inna xasla almayiti wa kafnihi wa salaatu calayhi wa dafnihi fardu kifayatin haqqun wajibun lil amwat ala al ahya yajibu al ihtimamu biha wal qiyamu alayha ala al wajhi al akmal fa innaha akhiru al huquq lahum ala ikhwanihim al ahya yaghfiru allah li wa lakum wa li sa'iri al muslimin الحمد لله الحي القيوم العزيز الحكيم البر الرحيم والصلاة والسلام على نبي الأمي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان إن غسل الميت يبدأ القاصر بعصر بطن الميت عصرا رفيقا فيزل به fa yasillu ma bihi min najasatin summa yadaahu ala makanin murtafia fa yujarridhu min siyaabihi wa yusra wa yustaru awratahu in kaana baaligan wa min alsunna itaaru alxuslaat salaasan aw xamsan aw sabcan wa an yakuna alxaslu alawal bilmaai faqat ala sifati alxuslu aljanaba والثاني بالماء والصابون والثالث مع الكافور ومن المستحب البدء بالميامن من وأن يودعه ودوع الصلاة ويجتنب فصل شيء عن جسده من الشعرة أو صفر أو نحو ذلك ويستحب أن يكون الكفن jadidan xasanan nadifan saatiran lilbadan abyadu lawn wa an yakuna thalatha lafaahif lirajul wa xamsan lilmara wa fi kulli hadihi almaskurat ahadisu nabawiya muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa arkanu salatu aljanaza sittatun anniyatu walqiyaamu lilqaadir atakbiratu alarba wa qiraatu alfatiha wa duaau wassalaamu wa kayfiyatuha an yaqifa alimam xasaa wasatu rajul walmara wa eh, asaa rasiha wa sifatu salaati ala aljanasa an yukabbira almusalli takbirat alihram fa yaqra'u alfatiha bacda taawus summa yukabbir thaniya yusni ala ala allahi taala bima huwa ahluhu wa yusalli ala nabii muhammad sallallahu alayhi wa sallam summa yukabbiru thalith fa yad'u lil mayti summa yukabbiru rabi' fa yad'u li aamati lmuslimin summa yusallim wa min aksariha allahuma igfir lahu warhamha warhamhu allahuma igfir laha warhamha wa yustahabu fi sufufi an tablugha thalatha wa رزقنا الله وإياكم حسن الختام والميتة الطيبة وحسن المصير وأرحم الله جميع الموتى المسلمين والمسلمات السابقين واللاحقين والمتقدمين والمتأخرين ويدخلهم في فصيح جنته برحمته ومغفرته ولطفه فإنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين فالمطلوب منك يا عبد الله عند وجود الميت ترك جميع المهمات والقيام بأمر تجهيزه والصلاة عليه ودفنه وخضاء دينه وتحشيم ترك تركته اللهم اغفر لنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ولك الحمد ولك الشكر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا اللهم إنا نسألك الخير في ديننا ودنيانا أصبحنا على فترة الإسلام ندعوك في خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده اللهم إنا نسألك العفو في ديننا ودنيانا اغفر لنا ولمن سبقنا بالإيمان wa nasaluka min alxayri ma saalaka minhu abduka wa nabiyuka muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ibaduka salihun wa naudu bika min annar wa ma xaraba ilayha min xawlin wa amalin wa nasaluka aljanna wa ma xaraba ilayha min xawlin wa amalin yaxfiru llah li wa lakum wa li saa'iri almuslimin allahu akbar allahu akbar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 لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء عصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون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 ittabi'u man laa yas'alukum ajran wa hum muhtadun allahu akbar allahu akbar sami'a allahu liman hamida rabbana السلام عليكم السلام عليكم bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziyaar leen nu ngi ñëw ci suñu émission yowmal jumaa comme ni ngeen ko xamee rek ñu dem ci jumaa ju ci nekk ajuma ju ci ne taataan la fay bàyyi ko jottali ko mbooleem doomu aadama yi xam ngeen ni jamono yi yëpp maa ngi New York euh, barki démb rek la ñu ànd fële ca kër sëriñ tubaa Xaadim Rasoul ànd fa ak imaam Xaadim Bousso tey jii ñu ñëw ci zawiya Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu barab bii di barabul islaam njabootu maam Seydi Hadji Malick taxawal ko fi sëriñ Abdou Aziz ci taxawaayam ak yittey mbooleem ñi nga xam ni ñoom la yàlla jaboote foofu ba xalifa bi sëriñ Mbaye Sy Mansour eh, ndigal li nga xam ni ubbi nañu jumaa ji ci jamono yi weesu moo waral sax ñu ñëw teew ànd ko ànd ko yéen fii ci jumaa ji ah tabaarakallaahu yàlla na yàlla dolli ndam xam naa du ma sori ñu ngi toog ak imaam danu koy jox kàddu gi rek Diop bu ko defee mu nuyoo dellusiwaat ci xutba bi dellusiwaat ci yitte yi nga xam ni mooy taxawaayu jumaa ji su ko defee ñu jox itam ñi fi nekk ay kàddu ndax commission am na fi ay daayira am na fi ba ci jigéen ñi ñoom kenn ku ci ne am na ay taxawaay yoo nekk ci jumaa ji su ko defee duñu sori nu sargal nag mbooleem ñi nga xam ni fekk nañ leen fi ak ñi ñu àndal euh, xam ngeen ne alaaj Jibi Laay Jóob xam naa Futurs Médias na mën na ko moom lañu àndal ci émission bi tey Euh, ndax Ibou Cissé bu bàyyi ma nga ca Sénégal waaye alaaj Jibilaay Diop ma ma àndalan ca Rasulullah sallallahu tey jii moom la ñu àndalaat fii ci New York euh, ànd ko moom ci émission bi di ziar baax Cheikh Omar Kane mi nga xam ni kenn la ci nun di chef religieux ñu ànd fi daje yàlla na yàlla dolli koy ndam ak mboolem ñi fi fekk kon du ñu sori rek dañuy jox imaam kaddu gi incha allah kon sëñ Ablaye bismillah. aoudu billahi mina shaytaani rajim. bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, Oustaz ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci sawiya Seydil Hadji ci kanamu kilifa yi nga xam ni ñoom lañu ñu seqal xadra bi ñu fas yéene yëkkati kàddu ci ndigalu suñu xalifa général de Tidiane sëriñ Babacar Sy Mansour ak ay rakkam yëpp ka yore kaddu kër Seydil Hadji Malick di sëriñ Pape Malick Sy ak seeni rakk ak seeni njabooti bopp ak seen rakki bopp ji nekk ak ñun fii ci Washington DC di sëriñ Sidi Ahmed si bu maam Habib Sy bu maam Seydil Hadji Malick kon ñu yëkkati kàddu ci curu kilifa yi suñu imaamu ratib dafa dem senegal nekku fi waaye mel na ne mi ngi fi muy alxaaji jibril jéey ñu wuutu ko fi fa tabarakallahu euh, question bi nga laaj nag jumaa ji fa tabarakallahu xam naa bala ñuy dem ci xutba bi nga laaj pour ñu wax ci tuuti ndax xam naa ne du fi xaj euh, dañuy am mbégte ak kontaante bu mag ci jotaay bii ci barab bii di sawi Seydil Hadji Malick di barab ba nga xam ni suñu kilifa gu tedd kilifa gu sell kilifa gu baax yal na yàlla yokk leeram ndigal li yépp ci euh, kàddoom la jóge woon muy sëriñ Abdul Aziz si Al Amin moo fi ñëw joxe ndigal li ni ndax am ngeen fu ngeen di defe xadara ñu ni ko amaguñu ko fu ngeen di defe wasifa amaguñu ko mu ni wut leen ko nag jot na ba mu nu ko santee nag ba mu demee Tiwaawan la njaboot gi yëpp àndandoo ni ndigal li jib na ci sëriñ Abdou kon léegi def ndigal rek moo ci des njaboot gépp ànd fa tabarakallahu di def seeni cotisation ba ba mu jur lii tey ci gàttal su ko defee kon loolu duñ ci sori am na ñu war a wax loolu su ko defee ñun li ñu fi euh, yàlla nattoo ñu nekk fi moo di di jiite ci jumaa ji ànd fekk suñu yeneen imaam wax naa ko léegi imaam Jibril Dieye imaam Ndongo Sarr mi ngi toog nii ci sama wet euh, imaam Abdoul Aziz Fall ak imaam Moulay Diagne ak ñi nga xam ni ñooy naayib yi nga xam ni ñoo fi nekk ak euh, maamam yi nga xam ni ñoom lañu seqal xadara bi ajjuma bu nekk nii lañ koy doxale euh, fa tabarakallahu bu dul ajjuma itam événement diine bu xew Euh, sawiya bi day fees dell fa tabaarakallaahu ci njabootu Seydil Hadji Malick euh, ñu am ci mbégte lool ci taxawaayu njaboot gi ak dégg ndigal bi nga xam ni dégg nañ ko seen ndigalu kilifa yal na yàlla gën leen a dëgëral yàlla gën leen a barkeel fa tabaarakallaahu euh, ci la ñu nekk ba mu jur lii tey kon julli gi nga xam ni mooy julli juma nga laaj tuuti ñu wax tuuti ci xutba bi nga xay moom lañu def tey ci Euh, balaa ñuy julli dañu ko jëmale rek ci jéem a fàttali suñu bopp fàttali mbokk jullit yi li nga xam ni mënul ñàkk te noog moom noo dëkk bis bu nekk mi ngi fi benn ci suba gi wala ci ngoon gi wala ci guddi gi noo dëkk moom muy dund ba sa dund jeex nga génn àdduna euh, nañu la war a waajale ba delloo la sa boroom loolu lañu ñu def xutba tey ni la war a waajale mooy la ca jiitu moo di soo amee sa mbokk mu la jige mu feebar lay sa warugar mooy nga toog ci wetam di ko dëfal di ko ñaanal yàlla bu fekkee dem na ba nga xam ni sonn na li des ñu jël ruuxam bareetul li lislaam daf la sant nga dend moom boo ko mënee jàngal sóoratu yaasin nga jàng ko ci wetam ba pare nag di wax baatu laa ilaha illallah ci wetam mu lay dégg loolu ba tey ci xutba bi la bokk bu loolu amee nag ba yàlla dogal la nga xëy moo ko soob ba mu jël ruux ga moom yàlla yow mi nga xam ne yoway mbokkam toog ci wetam am na lu la lislaam sant te moo di euh, li nga war a def premièrement mooy xool ko bu wér ba xam ndax ruux gi dem na wala demagul bu la wóoree ni ruux gi dem na la nga war a jëkk a def moo di ay cëram yépp nga dajale ko tànk yi nga dajale ko ñaari baaraam yi day yem bu fekkee sax am na loo ko mën a yeewee ba du xajjale ko nga def ko loxo yi noonu su ko defee nga defar ko defar bu jekk dog koo tëral ba nga xam ni balaa ñi nga xam ni ñoo koy jël si war a ñëw jël si ko su ko defee loolu mooy première li mu war a def li mu war a def wax naa leen ni mooy jàngal ko suuratu yaasin bu fekkee ni mën nga ko ba ca des moo di nga dajale ay cëram yépp ñu yem su ko defee bu fekkee ni bët yi mi ngi doon xool ndax doomu aadama buy génn àdduna bët yi ni ñuy xëcce ruux gi muy dem ci kaw bët yi day ànd ak moom téenaay boobu ak xool boobu du ko delloowaat mukk yow mi da nag moom nag lañ la sant moo di nga jël ndox tooyal ci sa loxo di ko raay ndànk ci bët yi di ko delloo ba bët yi euh, dellu fa mu nekkoon mu gëmmu nga defar cër yépp jël sér bu laab bu set lam euh, lëkkaaye ko ko maanaam nga sànge ko ko bala ñu ko yóbbu fa nga xëyee fa lañ ko war a waajale pour defar ko fañ ko war a waajale itam bu fa àggee sopp nañu ñetti nit bu fekkee mën na am ñu teew fa ñetti nit ñi lañ ci jublu moo di kii mooy ragg kii mooy wëlbati euh, maanaa kii mooy bomb kii mooy wëlbati kii mooy kii mooy kii mooy ragg muy ñett ñoo xëy ñoo jàppalante ci sang bi cangaay bi Euh, cangaay ba itam lañ ci gën a taamu moo di euh, na nekk ñetti ndox bu fekkee ni mën naa am na xam bu doon benn ndox itam nag ba tey yàqul dara waaye sopp nañu mu nekk ñetti ndox ñetti ndox ya ba ca jiitu mooy na nekk ndox mu sell ndox moo xam ni dara raxu ko xet gi xeeñul melokaan wi soppeekuwul euh, te itam nam meloon ca ndey ja rek noonu la mel ndox moomu la ñu taamu ci sange ko koo xam dafa génn àdduna su ko defee lañu ñu jëkk sopp moo di yërëm yépp nañ ko summi ba mu des li nga xay moo sutural awraam nañu summi yëre ba mu nekkoon ba nekkoon foofu waaye nag ñu teg ca loo xam ni kenn du gis awra ba même ñi koy sang yow mi koy sang lislaam mayu la ngay gis awra ki ngay sang fa nga xam ni fa la awra ba nekk boo fa àggee war ko raxas sa loxo rek mën na faa dugg waaye sa bët bu mu gis awra ba loolu dañ koy tere su ko defee dangay ngay njëkk def mooy xubbi ko xubbi moo di fépp foo xam ni sobe laal na fa mooy kanam gi muy ginnaawam lépp nga raxas ko ba mu set wicc ak ndox mu sell la la nga xëy moo ci des nag moo di boo defee loolu ba noppi nga jàppal ko waaye bala ngay def loolu yépp na nga ko teg ci place boo xam ni place bu kawe la mu bañ a tëdd ci suuf nga xam ni boo sottee ndox mi ndox mi day taaju foofu loolu lañ ciy bañ teg ko foo xam ni bu ndox mi dalee ci kawam rek day dem waaye du fa taaju nga jàppal ko euh, am na téere yu wax ni njàppul benn benn comme ni ngay jag euh, jàppe booy sangu farata am na yeneen téere yu wax ni njàpp comme boo doon julli ni ngay jàppee su ko defee kon bu njàpp li weesoo yow miy sang nga tàmbalee ca la gën a féete kaw jëm ci suuf ci wetu ndojoor ba dañ koo taamu loolu dañ gën a sopp nga tàmbalee ca kaw ci wetu ndojoor gi dem ba ca baaraami tànk ya nga xalil ko baraam yëpp tooy ba ca weya na lépp tooy nga doog a dem ci wetu càmmoñ gi defee ko noonu tàmbale ca kaw ca bopp ba ba ci suuf ci tànk yi su ko defee nga euh, doog a dem ci fi nga xam ni moo di euh, ginnaaw gi après nga ñëw ci kanam gi raxas lépp ba mu set ak ndox mu sell bu loolu paree nga doog jël nag saabu ak ndox raxas ko ba mu set wicc bu loolu paasee nga doog a ndox moo xam ni day ànd ak kaafoor bu fekkee ni xamuloo kaafoor moo di ndox mu ànd ak gëtt gu neex euh, xet goo xam ni xet gu neex la moom nga koy mujj sange bu noppee nga jël morso euh, fi tooyoon lool ak ndox nga fendal ko ba mu fendi nga jël yére yi nag war koo sàng yére yi ñu ko war a sàng itam bu fekkee ni góor la lañ ci taamu na nekk ñetti mbalaan lañ ci gën a taamu itam ci yére ba na nekk yére bu weex na nekk yére bu set na nekk itam yére boo xam ni dana jot mboolem yaram wa loolu lañ sopp ci góor bu fekkee jigéen la nag lañ ci gën a sopp mooy na nekk juróomi mbalaan na nekk juróomi yére yoo xam ni moom nga koy euh, sànge su ko defee bu loolu yëpp pare nga sang ko sang ko ba noppi nag ñu yóbbu ko ca jàkka ja wala fu ñu ko war a jullee fu mu mën a doon ñu teg ko ci kanamu imaam imaam taxaw ci kanamam sàppe ya nga xam ni ñoo koy euh, ñaanal ñaan gu mujj googu nga xam ni mooy xàq bi dox diggante ñiy dund ak ki génn àdduna moo di sàppe ya sopp nañu mu nekk ñetti sàppe sopp nañ ko bu fekkee mën naa nekk waaye bu mënta am itam nag yàqul dara ci julli ga waaye loolu dañ koo sopp muy loo xam ni lu ñu war a def la nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax su ko defee imaam bu fekkee ni ki muy jullee góor la dañu sopp imaam taxaw ci euh, digg bi fi nga xay mooy digg ki góor ki foofu la war a taxaw bu fekkee ni jigéen la nag na euh, ëppee taxawaay ba na ëppee ca féeteeg bopp ba waaw bu mu jige euh, ndigg la bu mu jige itam tànk ya na ëppee ca fa bopp ba jërul sax muy jige bopp bi lool waaye na paase ndigg li jëm ci bopp bi foofu la war a taxaw bu dee jigéen la su ko defee bu dee jigéen la buy ñaan allahumma ixfir lahu warhamhu wala allahumma ixfir laha warhamha ak beneen ñaan boo xëy moom nga war a def su ko defee nga jàng fatiha su ko defee nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg ko euh, sant yàlla ñaanal ki nga xay moo génn àdduna ñaanal ñi nga xam ni ñooy jullit yi nga xay génn nañu àdduna yépp ñaanal muslim yépp kon loolu mooy waajtaayu ni ñu war a waajale ku génn àdduna mu nekk warugar nag ci képp koo xam ni jullit la nga xam naka la ñu war a waajale ku génn àdduna ndax li ñu gën a sopp moo di boo amee ku génn àdduna yow mi mu xay yow la gën a jege yow mi mu gën a jege nga defar ko loolu lañ gën a sopp bu fekkee amuñu ko nag ñu doog a seet keneen koo xam ni man na ko wala ki mu dénkaane woon mu mu waajal ko waaye bu fekkee nii jëkkër la soxnaam lañ gën a sopp mu sang ko bu fekkee ne soxna la jëkkëram lañu sopp lañ gën a sopp mu sang ko bañ ña nga xam ne ñoo ci sës ci ñooñu kon daal oustaz njaga euh, ci tënk rek xam naa mën na naa gën a yaatu loolu mën na gën a leer lii waaye ci tënk rek loolu lañu ñu defoon xutba tey ci àjjuma ji euh, laayee ko biir suñu bopp ak ñi nga xam ne ay jullit lañu kenn ku nekk jéem koo xam kenn ku nekk jéem koo jàng ndax noog moom noo dëkk mënuñoo tàqali ko euh, kenn ku mu doon rekk bisa ngi ñëw ñu defar la loolu nga xëy moom laa wax léegi yal na yàlla sàmm ñu ba mu yéex te buy ñëw itam yal na nu fekk fi neex yàlla kon daal lii moo doon kàddu yi nga xëy moom laa doon jiital bu fekkee ne amuloo beneen laaj boo xëy war nga koo laaj euh, wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim. يا أيها الذين